ànd le gouverneur de la région ànd ak préfet du département de Birkelane et les sous-préfets xam ñoo nekk fii ci département bi doon ñëw doon seet ci wàllum tànneef bi parce que yàgg naa koy wax wàllum tànneef bi moo gën a nekk étape bu gën a ci état bi mais ba mu ñëwee fii ba mu leen dégloo ñu wax dama ni xëy ñu ñëw sax xeyna waru ñu fi won ñëw parce que mbir mu dafa tegu jaar ci yoon jaar na ci yoon parce que xeyna donc acteur yi manam xam nañu liggéey bi waye jaar na ci aussi parce que l'administration territoriale territoriale dafa jouer rôle bu baax jóge ci gouverneur jaar ci préfet ñëw ci sous préfet parce que néna c'est la responsabilité de l'administration territoriale moom suivre processus bi jox nañ leen ay jox len manam euh autorisation bo xamni ni mën nañoo sax def rectification ak les correctifs nécessaires

fexe nañu ba stabiliser ko maanaam lépp loo xam ni amoon na ci lu ci lëndëm wala lu ci laxasu ñoom génn nañ ko mu tegu yoon loolu nga xam ne aussi mooy yokk ci RNU bi maanaam séddale nañ ko nuñ ko waree séddale fii ba ñu ñëwee ci commune Birkelane gis ngeen ni euh, ñëw nañ ci benn kër fii benn quartier ñoom ñu ni par exemple ci lu yokk cent quatre-vingt la cent quatre-vingt am na quartier boo xam ne jox nañ ko ci soixante am yeneen quartier bu ci nekk am quarante donc te loolu ñoom ñoo ci d'accord si do bi ba nga xam ni coow amul jafe-jafe donc ñu yel yellool ñoo ciy jot ñu yel yellool ñoo ci ñoo koy am donc li la ñu doon li lii la ñu parce que bu faites maire bi généralement nous mu war problème du am jafe-jafe du am bu fekkee délégué de quartier bi le chef de village bi comme nous mu ko ben a joué benn jafe-jafe am bu fekkee aussi l'administration territoriale encadrement bu mu laaj def nañ ko

bu soobee suñu borom fileeg ñeenti fan juróom fan tout au plus dana si parce que dañoo bëgg fileeg semaine prochaine bu soobee suñu borom ñu tàmbali maanaam joxe bi parce que askan bi doo ko soxla mi ngi koy laaj te mi ngi koy xaar.